di dalal bu baax suñu yaay Seyda Zeynab Fall di suñu rab yàlla Seyna comme ni ko gars yi doon ku seetlu ñi nga xamante ne ñoom ñooy présenté ay émission diine si télévision euh, moom mii bokk na si ñi nga xamante ne ba léegi mosul changé doxalin yoon boo mu jëloon moom la jël ba tey si leen nga xam ba mu tàmbalee ba fii ñu toll nii loolu nag tawfiq la bu jóge si yàlla subhanahu wa taala ndax ñëpp xam nañ ne média dafa diis ñi si liggéey ñoom ñoo ko xam pression yi ñi lay déglu te en général ñi lay topp di lay déglu boo leen toppee itam ñoom am na fu la bëgg a jëmee foo xamante ni itam foofu du sa dox du sa doxuwaay du sa jëmuwaay gis nañ fi ay ustaas yoo xamante ni lu leen neex la ñuy wax si télévision yi ay seydaa yoo xamante ni lu leen neex la ñuy wax si télévision yi mais moom yàlla musal na si loolu ñu koy ñaanal yàlla subhanahu wa taala mu am sabaat euh, yàlla dimbali ko gunge ko ba si mission boobu nga xamante ne moom lay liggéeyal muy lislaam yàlla nga si yàlla taxaw kon xam naa incha allah dama jox kàddu gi kàddu gi Seyda Amina incha allah mu ubbil ko. ginnaaw bi ñu sant yàlla ba pare julli su Yonent bi alayhi salaatu wasalaam dañ leen di nuyu di leen tatagal di leen gërëm encore une fois si seen parce que lii natt la woon si ñun défi la woon tamit si ñu amal journée amoon nañ ay tiitaange waaye bi ñu agsee ba fii dañuy wax ne alhamdulilahi alamin di gërëm ñi fi teew ñëpp ku nekk ñoo ngi lay tàllal di la wax encore une fois asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh di am mbégte tamit encore une fois euh, toog ak suñu yaay yi xam ko présenté muy soxna wala suñu yaay ko xarit bi waxee yaay booy euh, soxna Zeynab Fall kon dalal ak jàmm ñun nag ñun ñooy waa Fonds des jeunes musulmans ñoo di ay ndaw lañ suñu yitte daal mooy une jeunesse musulmane plus consciente. defe naa loolu léegi ñëpp ñëpp na seen bopp daal d'après journée bi ni mu demee tey yëpp si perspective yooyu tamit dañuy continuer rek rek ànd ak euh, suñu yaay ci thème les moyens d'épanouissement pour la jeunesse musulmane sénégalaise. parce que umpale woon ne jamono bi li muy doxee léegi nii grand fan yii gis ngeen ni muy def bës ak feneen ak feneen monument de la renaissance léegi ndax ñun tamit en tant que ndawu jullit dem di féexal suñuy xol wala di bégal suñu suñu bopp daal est tamit daf ñoo rek bàyyee noonu dañuy ñun xaaral laabu que amul benn instant boo xam ne dañu war a féexal suñu xol ngir li ñuy jàng tamit mu gën a jariñu euh, ci loolu rek dañ koy bàyyi moom jullit yi. ñi ngi doore suñu kàddu ci turu borom bi subhanahu wa ta'ala moom mi nga xam ni lu ñu doore turam yi mu barkeel ko ñi ngi làqu tamit ci moom di muslu ci moom di ko ñaan mu muccal ñu ci iblis mi nga xam ni mooy yàqkatu jëf yi waaye di ko sant itam bim ñu defee ñu nekk nit di ko sant bim ñu yónnee yonent bi nga xam ni moo ñëw génn ñu ci lëndam indi ñu ci leer di ko delloo njukkal ci boole gim ñu boole ci ummatu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon alhamdulillahi ala kulli xaal alhamdulillahi xatta tarda julli sëlmal ñaanal suñu sang bi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàllaa ngi dotti xéewali ci kawam mu yokk ko moom ak ñi nga xam ni ñoom la àndaloon dajoon lu méttee métti ci mission bu rëy bii dajoon ay jafe-jafe ci lii nga xam ni moo ubbi dënn yi leeral xel yi ba nit xam fan lay teg tànkam te moom mooy diine islaam ñi nga xam ne ñoo ko accompagne woon ànd ak moom itam ñu ngi leen di ñaanal borom bi subhanahu wa taala sëmbaxtal yiw yi ci seen kaw ñu ngi leen di nuyu nuyu islaam nuyu bi nga xam ne mooy nuyoo waa aljanna nuyoo bi nga xam ne bu nit xamoon li muy firi boo rombee nit doo ko wax bonjour bu dee ngoon doo ko wax bonsoir mais danga ko naan asalaamu aleykum yal na jàmm yàlla nekk ci yow ñu ngi leen koy nuyu di leen ñaanal jàmm xéewal ak tawféex yàlla defal leen ko duñ fi yemale ñaan gi dañuy bëgg mu law ci àdduna bi yépp waaye lawaale ci dëkk yi nga xam ne ñoo ñu wër waaye senegal gi nga xam ni yàlla moo dogal ñu dëkk fi yàlla def fi jàmm ñu ngi koy ñaan borom bi subhanahu wa taala di feeñal suñu mbégte suñu kontaante ci occasion tuyaaba bi ngeen ñu may tuyaaba nit daf koy fàggul boppam nit dina ko may nit nit day fàggul boppam tuyaaba mais jullit dina may moroomu jullitam pour mu mën a am tuyaaba te lii ci la bokk kon ñu ngi leen ciy gërëm yéen ñi nga xam ne ay ndaw ngeen taxaw macha allah nekk ay jeunes yoo xam ne dangeen bëgg a ràññeeku ci seen diine ñu ngi leen di ñaanal seen initiative yi ngeen xam ne mi ngi nekk seen kanam li ngeen di jël di ko doxal yàlla na ko yàlla barkeel ba ngeen egg fi ngeen bëgg a yegg ndax lu taxaw ay ndaw ñoo ko taxawal thème bi ngeen ñu sant pour ñu jéem ko waxtaane ginnaaw bi ñu nuyoo Mansour suñu frère macha allah waa seen yaay seen yaay la maa yaay ñëpp Jibril Matroud Boy ak oustaz Mohamed Lamine Diop mi nga xam mi ngi fi woon ci suba ak suñu inspecteur Mohamed Nabi jàlloo ñu fi teew ñëpp ñu ngi leen di ziyaara bu baax a baax tem bi dañ ma ko envoyé audio ma ne sama borom kër déglul ma thème bii mu déglu ko reetaan ne ma waxtaan bu yomb la <laughs> man ko am ah, papa mu ne ma ah, waxtaan bu yomb la nee na nga waxal leen fan lañ mën a féexale seen xol ma ne ko islaam moo ñëw leeral dana yi féexal xol yi bi yàlla tànnee suñu sang bi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi mu laataa ñëw dafa fekk xol yi xat nit xamul woon sax lan mooy féexlu ndax boobu ñoom lañ daan tuddee féexlu nekkul woon féexlu mais notaate la tuddoon ak contre nature ndax contre nature mooy nit di def loo xam ni bokkul ak tobiaam natiiram natiiram mooy dund dund goo xam ni bokkul ak bi la yàlla sant benn jigéen dafa bind benn livre tuddee ko ay na saada di laaj moom milliardaire la mais daal dafa bëgg am bonheur te dañuy wax ni doon na dugg sax ci benn otel fanaan fa xëy di fay ñu ne ko fi yow yaa ko moom ndax bari alal bërëbu fokkaay yi miinoon nañ ko mais bi mu duggee ci diine mu laajal ñi nga xam ni nekkuñu ci diina ay na saada nit fan lay retrouver boppam nit fan lay amee féexu xol nit fan lay yégee ni moom am na bonheur mel ni benn question la boo xam ne daf ko posé mais mu tontu boppam ne ci islam la nit di amee li nga xam ni moom mooy bonheur saada bu ko nit bëggee am day topp ligne bi nga xam ni moom la ko yàlla rëddal loo am lu mu bari bari islam moo lay organiser nan nga koy gérer ba du am problème loo xam lu mu yaatu yaatu islaam moo la koy organiser ba doo maam kon diine moom dafa ñëw pour régler lépp yemul rek ci julli kese yemul ci kooru kese yamul ci jàngal ñu naka dañuy génnee azaka ci ñi ko mën waaye dafa jàngal doomu aadama benn marxala bu am solo boo xam ne dafa nekk ci diggante ñaari lompoñ muy diggante tufuula ak shayxuuxa loolu moom mooy ashabab jeunesse daa nekk ci diggante ñaar muy ki ndaw xale bu ndaw bi nga xam ni juddu na yàlla dëxan ci moom xel munu koo utiliser def ci moom doole mënu koo génnee mu dem ba am fu mu toll mu commencé di génn ndànk par ndànk mu dem bu passé état boobu day dugg ci beneen marxala mooy shaykuuka dem nag ba commencé lim mënoon ci jamono boobu mu commencé di ko ñàkk defe naa loolu la ñuy waxtaane tey foofu la ñuy concentré suñu waxtaan mooy ndaw ci boppam taxawaayam kan mooy ndaw pour waxtaan wi ñu mën a yegg ci li ngeen ñu sant pour wax ndaw fan lay mën a féexalee xolam il faut loolu moom moo koy jiitu dañuy dellu rek ci alquran laytaay la sunu waxtaan ñaari xissa xissa bu njëkk bi yéen ñëpp xam ngeen ko mooy asxaabul kahfi xam nga yàlla ni muy waxe bokkul ak ñun ni ñuy waxe ndax moom mooy allaamul uyuub bi muy nettali yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa mu commencé sax moom moo neex am solo yàlla dafa yónni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay problème rek wër ko alquran miracle la pour mu soulager wu moo tax bu jibril musaan ñëw ci moom ba wàccee alquran ba pare bu koy wàccee day yëg coono mais su paree day féex ndax loolu mooy li nga xam ni moom mooy système de vie bi nga xam ne nit foofu la war a mën a tënku muy alquran borom bi subhanahu wa taala ne ko comme bi nga ñëwee ay ndaw ñoo la jàppale te yow itam ndaw nga di ko yàlla di yónnee mi ngi am 40 ans 40 ans dañuy wax ni moom mooy digg ndaw donte léegi nag ko am quarante ans mère boo amee 40 ans paa ngay dégg mais quarante ans moom mooy digg ndaw dañuy wax ni ndaw li bu nekkee xale ba ba muy am 15 ans jàpp 20 ans xelam ak yaramam dañuy ànd di dem mais su amee vingt ans yaram bi dafay arrêté xel mi commencé di continuer diggante boobu nag. mooy diggante bi am solo moo tax yàlla daf ko tudd ci alquran lu baree bari moo tax bi muy jàngal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam asxaabul kahfi lan la yàlla wax innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnaahum huda fitya yàlla ne ko kaay ma nettali la ay ndaw yoo xam ne ñoo fi jiitu woon am luñ doon dund loo xam ni ca lañ juddu woon ci jaamu xërëm ci njaaloo ci fo ci naan sàngara ak képp sa morom doole woon ko ko mais ñoom ñu dem ba xam ni système bi bii normal lii du lu normal pour tënkal la xisa bi buur ba fa nekkoon Xiyaanuus moo woote woon benn ndaje boo xam ni par annuel la ko doon def ñoom ay ndaw lañu ñu gis ni journée boobu li fay am mooy fecc woy góor ñi tëdd jigéen ñi ku nekk def du la neex après nga ñibbi bi ci gën a métti mooy chaque année dañ doon jël benn xale bu jigéen rayal ko seen yàlla yooyu xale bu jigéen boo xam ne mosul sëy ku musul jaxasoo ak góor ñu rayal ko seen yàlla yi mu nekk genre neexal ñu neexale ko ko bu tasee ñu ñibbi ñu xool xam ne lii nekkul lu jëm kër est-ce que loolu moom moo tax yàlla bind leen ñu ne kenn moo njëkk a nekk ci programme bi di xool ni muy déroulé kenn roccee ko dem toog ci benn suufu garab mu toog ba mu yàgg keneen fekk ko fa ba ñu nekk mbooloo borom xam-xam yi dañoo wuute ci nañu toll alxuraan jàngal nañu ko mais lu mën a am ci li ñuy waxtaane tey borom bi subhanahu wa taala ne yonent bi neen ndaw ñi nga xam ne ñoo ànd ak yow bu ñu am benn problème ndax am na ndaw yu fi jiitu woon yëg ne na yëg ne àdduna ay ndaw ñoo koy doxal àdduna mënul dem sans loxoy ndaw moo tax yàlla ku mës a tànn di la yónni rek ndaw ngay doon fa lamma balaga ashuddahu aataynaahu hukman wa ilma mooy am na foo xam ni xale bi su fa tolloo léeg-léeg mu nax sax papaam te pourtant papaam tolloon na noonu lan moo tax mu mën koo tegal diil génn ci mooy fa mu toll moo tax am na foo xam ne bu fa tolloo léeg-léeg mu nax yaayam et pourtant yaayam toll woon na ni moom mais fa mu toll moo tax mu mën a teg yaayam dil ba génn ci ta ta du mujj fenn des fois xam nga xale yi ñoo gën a muus muus goo xam ne nag muusu yeewu teg nasaraan la boo xam ne da koo tënk ci ay matériel tënk ko ci ay objet yoo xam ne mooy mëdd xelu xale bi mu yaakaar ne loolu mooy àdduna te fekk na àdduna moom sori na loolu lool moo tax ñu bëri dañuy noyé ci biir jàpp ne niñ la présenté ci ay ndaw yoo xam ne ay franc ñoo leen di former ay juif ñoo leen di former ndaw li ñàkk xel ci beneen côté am xel ci caay-caay day def ni kooku war na koo mën a mat idole te fekk mu ngi juum jamono bu am li am tey amoon na ci jamono yi passé woon bain de minuit yi ngeen di dégg nii ak amoon yu gënoon a piir moo gënoon a am islam moo ñëw islamiser ko defar yépp rafet defar ko ba mu ba normal moo tax ñoom seen xew boobu lu nekk moo fa daan am seen dajaloo boobu bi ñu génnee dajaloo xalaat ni li fi nekk war nañ koo changer moo tax réew ay màgget duñ ko soppi dañuy toog du joxe xalaat mais ay ndaw ñoom ñoo koy soppi mag am na foo xam ne bu fa tollooy am na xel mag mat naa bàyyi ci réew mais ban façon mag mag mu am xel mag mu jege boroomam mag du yàlla mais yàgg na ak yàlla kon taxyiir bi nga xam ne sax ñun bëgg nañ ko suñu réew ku yaakaar ne mag moo ko fiy def dangay nax sa bopp de da ngay jàpp ni man mën naa changer système bi ñuy dund tey muy sunu jiit yi dañoo am ñu leen jiite ñu leen di orienté ñu leen di xamal di leen waxal te ñu ay franc lañ pour mu leer soo naan ay lii lañ ay lii ay franc ñoo leen jiite moo tax ku ci nekk rek da ngay nekk franc-maçon li gën a bari moo tax sànq même li Mansour doon wax ba ci média yi des fois ñi koy jiite léeg-léeg ay franc-maçon la ñuy doon ay borom alal lañ yooyu la ñuy doon yoo xam ne dañu nekk ay franc-maçon yow miy dund sa diine nag soo gëmul sa diine éppi gëm sa bopp ndax nit moom œuvre yàlla la ñoom ñoo lay orienté fu la neex day mel ni bët ñoo yor sa bët fu la neex ngay xool loolu nag ñun moom duñ ko nangu ndax alaylu moom la eh, mahma taala laa budda min tuluu'il fajri waaye wal umru mahma taala laa budda min duxulil xabri dund moom lu mu yàgg-yàgg di nga teew sa kanamu boroom te actuellement toll nañ foo xam ne ku ñu suul fàtte nañ la du dul ñu baax di la yónnee ay ñaan boo jëlee sa diina jaay ko jënd ko paytu àdduna xaw ma fay mujje bu dee alal la bu dee oto la du ko jar bu dee kër guñ lay dëkkal la du ko jar bu dee benn compte banque la boo faatoo doo ko yóbbaale kon lu dul diine diine moom moo ko gën borom bi subhanahu wa li tax ma indi aaye bi pour ubbeeku suñu waxtaan mooy dafa am loo xam ni ndaw moo koy jëlal boppam yàlla fekk si ko ca moo tax suñu benn magu réew doon na wax naan sabab lu leen te bu leen di sukkandikoo yëngu yi def naa ko liggéeyul doo fayeeku de ñoom bañ yëgee ni am na lu xew seen dëkk neexu leen dañoo jug pour pour war koo mën a changer kon changement dafay ànd ak tadhiya dafay ànd ak azima day ànd ak sacrifice ak li nga xam ne moom mooy dogu lañ doon dund neexoon na lool ci ñoom mais xel mi leen dugg te ñu nekk ay ndaw li tax borom bi subhanahu wa taala bind ko dugal ko ci saar bi nga xam ne saar la bu am solo muy suratul kahf tuddee leen ko nga xam ne yonent bi day wax ni boo ko jàngee àjjuma ba àjjuma bi du ñëw dafay nekk leer sa diggante àjjuma bi ak àjjuma bi nga xam ne moom ngay dëgmal si aay yi ci nekk dafa am solo waaye surtout lim ñu leeralal fii mu ne ay ndaw lañu yoo xam ne dañoo gëmoon seen boroom gëm gi xol du féex nit ku nekk na jàpp ni xol du nekk loo xam dafay nekk faraar amul dara lu ci nekk loolu mënta nekk xol dafay am yàllaay kese mu am yu mu àndal teg la ci njub nga mën a dem wala mu am seytaane pire am yu mu àndal teg la ci safaan tamit nga mën a dem te doo yegg fi nga jëm mais xol boo xam ni amul dara yàlla bindeewul noonu xol daa bind xol pour am yoo xam ni moo fay nekk moo tax boo xoolee cëru doomu aadama ay feewu doomu aadama ay jëfinam lépp yàlla daf ko branché ci xol dafa mel ni mooy compteur soo meree foo ko yëge ci xol soo kontaanee foo koy yëge ci xol li ngay gëm fan la nekk ci xol sa bëgg-bëgg fan la nekk ci xol innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda yàlla nee na dañoo gëmoon seen boroom xam ni li dund contre la man tam ma jàppale leen ci loolu na laaha laa yugayiru maa bi qawmin xataa yugayiru maa bi anfusihim yàlla mënul fekk ay nit liggéeyoo daal doo fa yegg ay nit yoo xam ne jéemuñu dara yàlla du taw wurus du taw xaalis dafa lay wax liggéeyal pour nga mën a jëriñu kon ñoom dañoo jug dañoo jug léeg-léeg da ngay dégg xale bu góor bi di wax naan xale bi dafa pare mais ñun dañu soxla ay ndaw yu pare ban façon pare mooy pare taxawu seen diine ci côté bu nekk pare xam ni islaam lu dul moom islaam moo ko gën pare xam ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mihna bi mu yoroon muy métier bi mu yore woon nga xam ne mooy jàng ak jàngale xam ak xamle ak mën a def àdduna mu nekk loo xam ne dafay am stabilité ba nit mën a dund am ak xam te du am problème soo ko bëggee ay nelaw du la ko may boo ci tolloo am na loo xam ne doo ko munoo koo dund sax benn boroom xam-xam dañ ko laaj ci jeunesse mu ne ndaw jamono bi ñu toll ñaar kese la visé ñu ne ko mooy ban ak ban mu ne ndaw lu góor li jigéen lay visé ak xaalis ndaw lu jigéen lu góor lay visé ak materiel tey loolu la ñuy dund ak wuteeg lool dina feeñ ci waxtaan bi ndaw yi fi jiitu woon seen taxawaay bi nga xam ne dañ ko taxawoon ba pourtant doon nañu foo comme ni nga ko waxee léegi mais ban façon foofu borom bi subhanahu wa taala ne wa naa ala qulubihim iz qaamu fa qaalu rabbuna rabbu samawati wal ard lan nad'uwa min min dunihi ilaha laqad qulna izan xatata taxawaay bi laa ci soxla li tax ma indi aaya bi mooy taxawaay bi laa ci soxla dañoo jugoon taxaw ñun fii Sénégal suñu habitude mooy dañoo mën a werante mais wax rek muy dem daa war a jeex isqaam dañoo taxaw taxaw temm ci seen esprit dañ ko defar xam ni xalaat dañ amoon bu njëkk ba dañ ko war a changé beneen xalaat muy yàlla moo fi nekk dañoo taxaw teem ci ne ñoom système bi am ci seen dëkk ñoom ñoo ko mën a changé ñu changé système bi nga xam ni bëggoon nañ ko dund ñoom ba changé waale sax réew ma moo tax yàlla jàpp leen ñu xam ni benn yàlla rek moo fi nekk mooy ki moom asamaan ak suuf kenn waru koo boole ak dara te gis nañ ni boobu ñu ngi jaamu ay xërëm tey ñun jaamuñu xërëm mais màdd la ñuy jaamu matériel tey surtout bii tey ku ci am doom bu jigéen boo nëbbee portable am wallaahi day feebar tey ku ci am doom bu góor boo jëlee portable am day am problème paaka ñaari boor la am na étude yoo xam ne mënoo ko xool lu dul fii nga koy jëlee doo ko duñ la ko bindal ci table bi ci école bi maître bi du la ko wax du la ko jàngal da ngay dem def say recherche am na solo mais est-ce que jumtukaay bi ñun ñi ko defar tubaab yi sax ñun ni ñu koy utiliser ñoom duñ ko utiliser noonu 2002 suñu mag bu nekkoon Australie Bécaye la tuddoon dafa génn àdduna dafa woo sama papa ne ko papa est-ce que xam nga ni téléphone day joxe cancer 2002 ba temps yi lañ commencé gisaat gisaat ci réseaux sociaux yi ñuy wax. 30 minutes rek boo ko yoree portable wuyu ko ci li muy def ci yaw ñun tey gis nga chaque jour ñu ñu bu bees bu dee def ñuy jëriñ baax na mais whatsapp xale bu góor bi xale bu jigéen bi rek kalaam faarit wax yu ñàkk fayda ay Instagram ay yoo xam ni am na loo xam ne mënut a ñàkk mais am na loo xam ne mën naa ñàkk yenn application yoo xam ne dañ la koy defal ba pare yow ñu ngi lay raket te bàyyiwuloo ci xel. ñi nga xam ne ñoo fi indi téléphone li ñuy gañe ci ay millions ay milliards kenn xamul nu mu toll man rek chaque jour bi fi bi ma yor chaque jour damay jënd crédit 1000 francs weer bi day ñaata la at bi ñaata la boo koy jëriñoo ci beneen côté sax amul benn problème li ma ci jublu rek mooy ñun bëgg nañu am taxyiir fii ci suñum réew il faut ñu jug taxaw taxawaayu ndaw nuroowul ak taxawaayu mag moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam koroog bi mu toogee ak saxaaba yi di leen waxtaanal aljana saxaaba yi tiit kontaan ndax fu mu waxee aljanna dina wax safara mu dara la seen xal seen xel juróom-ñaar ñoo xam ne ëllëg yoomal xiyaama aljana mooy seen kër xam ngeen def ci bokkoon wa shaabun nashaa fi ibadati bi ndaw loo xam ni daa bàyyi lépp dëgmal boroomam xam ni àdduna ay ndaw ñoo koy tabax tey ku entreprise am buy def publicité ay ndaw lay wax ku am âge bii ay vingt ans 30 ans jëm kaw mais ku am 50 ans jëm kaw doo ko dégg ndaw li muy représenté moom moo rëy ay bi su ma ko indee xam ngeen lu tax mbokk yi mooy yàlla bi mu cité ay ndaw daa cité seen taxawaay mooy taxawaay bi da ngay dugg yow sa roq man a kana xool est-ce que man ni may dundee nii man en tant que ndaw est-ce que maa ngi contribuer ci sama réew pour mu am changement bi ñu bëgg réew am ko wala déet day nekk benn question boo xam ne ku nekk daf koy pose boppam nekk ndaw rek jàpp ni doo faatu ba tax lu la neex def benn waykat nee na bëri na ay ndaw yu yaakaar seen gudd fan fekk ràbb nañ seen càngaay ba teg ko ci marché bi di ko jaay bàyyiwuñ ci woon xel bii dama doon métti boppam daa accidenté yaakaar ni rek yow moom bu asamaan si di wadd da nga koy téye ay ndaw ñoo fi nekkoon démb yu pare ñooñu ñoo pare woon dañuy jël ay moo def ko ay jeu te ñu ci bàyyi xel xale bi dafa pare ki pare mooy ki pare taxawu diineem xam ne yàlla rek moo fi nekk ñoom démb li ñu doon jaamu mooy ay yàlla ñun tey dañuy jaamu portable boo ko ñàkkee am nga problème dañuy jaamu xaalis léeg-léeg nga triandé léeg-léeg nga fen dañuy jaamu jigéen léeg-léeg xale bu jigéen bi jaral la nga abandonné say jur dañuy jaamu góor léeg-léeg xale bu góor bi ñu tere la ko nga ne tey nga dee temps yi rek la ñuy wax benn xale bu jigéen bu xaru ki mu doon bëgganteel dafa nekk géwél biñ demee ba ci jàkk bi jouru maye bi mbokk yu ñëw ndekete seen géwélu juddu la xooma seen maam yu fa tase ñu nekk di xamante ndekete ñooy seen géwélu juddu ñu annulé mariage bi xale bu jigéen bi dugg néegam naan ay comprimé dañu ñëw rek fekk mu faatu est-ce que su amoon taqwa est-ce que su xamoon li koy xaar ci àdduna est-ce que su yëgoon ay responsabilités dina xaru noonu ba zarde dundam ndax góor yii buñ mënoon a wax di nga ci dégg boo xam ne dina wax mu naaru laay yu doy waar la ci xale yi di def léegi gis nga réew xam nga lu koy doxal jàng émergence bii ñuy wax jàng ak xel mu sell moo koy defar waaye li koy tingoom mooy diine adduna bi mu sosoo ba tey ñi ko yor ku nekk xam nañ ni <laughs> ñu ay nitu diine mais fan lañ jëm ak ñun chaque jour lu gën a piir la ñuy dund mooy soo seetloo année bi nga génn mooy gën a neex année bi ñëw problème yu bari musiba yu bari dee yu bari yu bëree bëree bëri lan moo tax liñ waroon def dañ koo defetul léegi liñ ñu santoon dañ koo bàyyi moo tax ndaw yi fàtte nañ ni benn bindkat dafa bindoon lu am solo jëmale ko ci réew yi nga xam ni dañ leen di tuddee sous-développé man damay wax ne xam naa ñun Sénégal yi ñun ñun sénégalais ñun lañ ko waxoon yaa qawmu laa tatakallamu innal kalaama muharramu naamu wala tastayqizu ma faaza illa nuwamu wa taaxaru an kulli ma yahdi bi an tataqaddamu wa daaw tafakkura jaaniban fa charu bi an tatafakkaru saastin ñu ngi lay ziar saas ñu lay nuyu bu baax benn bindkat dafa bind na eh bu leen waxati ñun ñoo leen di waxal tey ndaw li fii référence bi muy xool ba ci ay waxam mooy franc bi benn jigéen bi mu tànn e, teg ko ci kanamam ne ko xoolal kii nag léeg mu nekk góor léeg-léeg mu nekk jigéen te léegi nag dañ koy jaar ci li nga xam ne moom mooy musique gis benn xal bu góor boo xam ni musicien la dañ koy jël ngemb ko ci moom ay kaat kàddoom la xale bu jigéen bi toog seen kër di dégg moom ci moom lay jàngee ay kàddu yu muy wax moo tax chaque jour ngeen dégg wax joo xam ne su suñuy maam xamuñu ko woon fii ngay gis ki wax ne ba mu yàgg xam ne ko xanaa dee nga fan la jëm na góore na ji na góore bu la neexee nga jigéen ko góor mi nga xam ne en tant que góor ku ñu doon wax góor jigéen bu njëkk ba da ngay dar sa nopp da ngay tiit mais tey nekk góor jigéen dafa mel ni amul sax bàkkaar te pourtant dafay jóge ci kàddu gi nga xam ne dañ la koy jox ndànk rasul fikri lay doon indil la benn film boo xam ne góor jigéen daf cay nekk exposé la koo xam ne dañ koo xewal moom moo xew xam ngeen temps yi ki xew xam ngeen ko Rihanna nga nam franc-maçon maçon nii moo leen jox alal ji ñu am booy xool seeni clip safara yéeg bët yéeg léeg-léeg ngis xale bu góor bu photo def nii loxo yeeg def ay façon façon franc-maçon te doo ci bàyyi xel léeg-léeg jigéen bi def ko yii lañ la indil exposé la ko jox la ko nga def ni yaa ci nekk soo solul seen col xewloo soo waxul seen waxin xewloo soo doxalul ni ñuy doxalee soo ko doxalewul xewloo mais réew moomu fan la jëm réew mi actuellement Sénégal bu demee ba ñuy wax ni tey franc soo nga xam da nga ko daan dégg benn benn te te kenn du ko sañ wax ci kaw de tey bu ñu demee ba osé di fi def seen réunion ngeen xam ni nag fan lañ jëm ñun tey ay nan ma far te li ci gën a métti mooy ndaw li ñuy jël ndaw li nga xam ni ndaw ak xelam ndaw ak dooleem ndaw am ak ak dogoom ndaw ak su buggee dara li nga xam ne noonu la cay demee kooku la ñuy jël formé ko teg ko sa kanam nga yaakaar ne kii mooy sa royukaay ak a métti ak a doy waar ndax lan xaalis dafa des fois damay ne nit ñi am na ñoo xam ne du ñu xalaat yoo xamuloo kañ ngay dee te xaalis bi sooy dem doo ko yóbbaale nga mën a def ay mbir yoo xam ni mais nag xam nga comme dañuy wax ni ñoom. boo xam xasee ba signé pacte ci ñoom bañ jël li soxla ci yow sa deret am na yoo xam ne boo koy def day mel ni doo too ko tey ndax deret boobu dañ koy am lu ñu ciy def ci yow ala sa ama yafaaluun ñaaw nañ li nga xam ne noonu la ñuy defee actuellement mu mel ni àdduna dañ ko tëj ci benn néeg ay nit di ko xalaatal ci diggante juif ak yahud danga ciy boole ak góor jigéen ndax ñi gën a mag ci ñoom tam ay góor jigéen lañ soxlawuñu jigéen seen moromu góor la soxla ñu di ci amee nag alal yoo xam ne kenn xam nu mu toll ay ndaw ñooy taxaw pour a soppi li xew ci seen réew moo tax ndaw yi nañ yëgaat seen responsabilité taxaw débat yi débat rek bàyyi noonu du ko changé de daf lay jaral ne naa la dafay ànd ak ñaar azima ak tadhiya da nga ciy am dogu ba pare am ci mu jaral la sa lépp daal soo demee da ngay dem aljanna beneen ndaw boo xam ne moom exemple lu góor ñépp la def naa xam ngeen ko tontu yàlla yusuf alayhi salaam tey sa maam daf doon wax benn kàddu dama koy rusa wax sax ndax man góor ñi samay xarit xarit lañ daf doon wax góor yiwul buy xool jigéen lenn rek la opp ci moom waxu mag la mais nag bari na lu muy firi xam nga bu yàlla bindee bu jëlee comme ni ko français di waxee noir sur blanc bind lu ñu jël alxuraan bind ko ci feuille bu weex tàll bàyyi ko ci mu nekk loo xam ne signature la ilal abat aaya yi kenn du ko jàng muy romb noonu mais danga koy dégg xam nga war a waraawadat hullati hiya fii baytiha problème góor ñi la nañ ma baal très rarement la ci góor di mucc li may wax déglu leen ko bu baax jigéen bu am alal am daraja am fu ko nit ñëpp teg Zalixa ci jamono boobu dafa nekkoon princesse moo nekkoon jabaru euh, buur ci jamono boobu mais ba pare amoon taar moroom jigéenam ñépp dañ koo ñeewoon bi mu woowee yonte yàlla Yuusuf alayhi salaam dugal ko néegam très rarement góor mucc ci boobu piège xanaa yàlla dimbale na mais yonte yàlla yusufa alayhi salaam taar bi nekkoon ci moom ba yaay Zaliqa mu attiré ko mu fàtte sax moo ko yaroon jigéen dafa gàtt xel moo tax jigéen li tax yàlla boolewul ñaari jigéen wala boolewul ñaari góor boole jigéen góor ak jigéen jigéen lu mu am am xam-xam lu mu yeewu yeewu lu mu muus muus am benn faiblesse góor surtout bu nekkee kilifaam yàlla moo ko bindee noonu noonu noonu la ko namee góor lu mu am am am daraja lu mu foor foor foor am benn faiblesse jigéen bu nekk ci moom li tax ma wax lii mooy yuusuf borom bi subhaanahu wa taala moo ñu ko leeral walla xat hammat bihi wa hamma biha loolu dafa leer borom xam-xam yi Xurtubi soo demee ci moom dañ koo tas dañ ni yàlla waxul ni euh, Yuusuf daf ko xemmem moom en tant que jigéen mais góor la dafay soxla jigéen li tax mu jiital Zaliqa Zaliqa moom moo woote wala xat hammat mu ne jigéen ji moo amoon moom benn xemmemteef ci moom boo xam ne la mu buggoon bëgg na ko am ci moom mais Yuusuf xemmemul Zalixa mais góor gi mu nekk góor mooy góor dafay soxla jigéen law laa an raa burhaana rabbi dañ koo firee nu bari nee nañ dañoo wane ki nga xam ne moom mooy yàqu papaam mu gis nataalam mu ne ko laa taqrabu zina am ñu ne dafa xool ci benn bërëb gis ñu bind ko fa des fois ay taawilaat lay doon mais lu mën a am rek yàlla nee na am na lu tax lu ko empêché mais defe naa boo jàngee aay bi ba mu jeex mooy li ko empêché mooy dafa préparé woon boppam innahu min ibadinal muxlasin daa préparé woon boppam en tant que ndaw ndaw dafay préparé boppam préparé sa bopp mooy ndax mooy sangu ba set solu boo bëggee dem ci xëb yaa ngi préparé du loolu préparer sa bopp mooy en tant que man ndaw àdduna bii yàlla daf ma fee indi dama nekkoon bébé démb am fu ma tolloon mënuma dara tey may dem ba nga xam ne li papa mënoon maa ko ko dàq ci biir kër gi li yaay man maa ko ko dàq tey kon ban façon taxaw laay taxaw kon sa xel ngay utiliser pare ci wàllu mental xool sa bopp xool bu baax a baax pare ci côté yépp jigéen bu doy waar léeg-léeg góor baax lool mais jigéen yàqal ko àdduna piège yi dañoo bari te jigéen dafa bari dafa dafa dafa rëy xel ñaari pexe la yàlla tudd bu seytaan ak bu jigéen bu seytaan nee na amul doole ndax yàlla da koo teel avertir na ko indi inna ibaadi laysa laka alayhim sultaan am na ñoo xam ne mënuloo leen dara même bu ñu juumee tamit dañuy rectifié waat na yàlla baal ñu yàlla jéggal leen te am na giraawaar yoo xam ne duñ ci mës dugg du alal du jigéen du poste dara du leen ko jaral am na ñoo xam tam du góor du alal du dara dara du leen ko jaral mooy ndaw yi nga xam ne dañoo pare xel dañ koy utiliser moo tax yàlla suy wax borom xel yi lay waxal wa maa yatazakkaru illaa ulul albaab ñi am xel la yàlla di waxal pour wan la ni ndaw ñaar yi nga xam ne daf ko gën a opté léegi ndax thème bi mooy place yi ndaw mën a fowe ban façon fo dañu gis tey ak actuellement mooy foofu xale yi bu njëkk ba ñun boog ñun bañ ca tolloo ñun liñ daan fowe mooy ay pala lii nag ooyo ay wure ay tam mais tey portable la xale yi di fowe nouvelle technologie tey yow da ngay am sa portable doo ci xam dara mais sa doom moo la ciy génne loo xam ne yow xamoo ko ci tey façon fo bi ñu leen indil. mu nekk rasul fikri boo xam ni moom dugg na sax ba ci mag ñi ndax tey kër goo dugg ñëpp dañuy concentré wu léeg-léeg nga nuyoo kenn du ku nekk nga yor bii rek nga nii non portable man daf ma jaaxal seytaane bu mag la da ngay nuyu nit léeg-léeg gis nit kuy dox ci mbedd bu njëkk bu soo gisee kuy dox te la kenn danga naan day waxtu léegi kenn waxtul kenn day waxtu ma nga takk écouteur am ma ngay wuyu léegi gis koo xam day day day gesticuler sax di wax di dem di def nii dof tigi te bàyyiwu ci xel il faut xel yi ñu nàmm jëmale ko fi nga xam ni moom moo neex borom bi subhanahu wa taala fam itam dañ koy organiser gis nga islaam aleykum salaam yonte bi sallallahu alayhi wa sallam ñun ñëpp jàng nañ ci ne mus na tingoom yaay Aïcha radiallahu anha amira ñu ngi lay ziyaara Fall ñu ngi lay ziyaar Fall mus na nga yaay Aïcha ci benn fo boo xam ne waa xabasa ñoo doon fo seen seen cosaan la woon mu tingoom ko muy seetaan est-ce que fa moomu tey mook làmb ñoo yem est-ce que boobu mook marché yi ñuy organiser ñoo yem islam xam na fa de ndax nit ku nekk dafa am culture nit ku nekk dafa am dafa am loo xam ne moom mooy cosaanam li fekk mu ngi tege ci tegandaay du xaraam mais tey sunu ndaw yi ban façon fo chaque jour nga génn clip bu bees est-ce que pas moo koy génn ay xale yu ndaw tey ku nekkul animateur ci xale yi ñenn da nga gis koo xam day jàng ba am ay diplôme mais dem opté nekk animateur musique daf lay jaaxal léeg-léeg yow mi nekk ci média dañ lay indil ay demande koo xam ne jàng na man animateur laa bëgg a nekk danga naan mais kii ay naaqlu ana xelam animateur teg wayu jàmbur tàcc fecc maa ngi koy may diw maa ngi koy may diw est-ce que loolu liggéey la xale bu jigéen bi ne moom animatrice la bëgg a nekk kii ne moom waykat la bëgg a nekk nga commencé woy sa baat neex ñu wala am fu ñu jaar ak yow nga nangu ñu lancé la def la benn franc-maçon sa yaay du ko xam sa papa du ko xam nga nekk ci loolu commencé changé seen situation kër ñu ne sama doom tekki na la hawla wala quwwata illa billah tey lii la ñuy dund dugg ci jaayum dorog xale yu bari yàq nañ seen xol seen xel dorog jaay dorog maa bëgg a tukki gis ngeen façon tukki bu nekk xale yaa ngi koy tukki tey lan lañ ci jublu damay wax ni nit buy def dara dafa war a xam lii lan laa ci jublu lan moo tax ma koy def comme nit ni muy laajee boppam lan moo tax yàlla bind ma. limaza xalaqana allah lan moo tax yàlla bind doomu aadama woo malaayika yi nga xam ne ñoo ko dàq jaamu foofu ne leen inni jaa'ilun fil ardi xalifa kii laa bëgg mu représenté ma ci kaw suuf sa présence ci kaw suuf lan lay wund moo tax ki bindu téere boobu masa yaani intima indil islam def naa fàtte yekkal la sa bokk gi nga bokk ci diine lan lay wund yow yaay kan yow en tant que yow jeune bi yow yow ban façon ndaw nga musique drogue jigéen bu dee jigéen góor est-ce que loolu mooy fo tey fo yi ñuy gis fii Sénégal làmb dañ koy tuddee fo làmb kenn mënut a wax ba mu dagan làmb kenn mënul wax ba mu dagan ki futteeku ngay gis a awraam te góor ñu xam a awraam fi mu commencé ak fu mu yem mais loolu nga koy seet nga di toog di ko seetaan loolu xam ngeen nii xaram ga dafa jégg dayo sax nag li gën a doy waar ci mbir mi mooy euh, buxaaba bi nekk ci biir sixr bi non seulement bokkaale yàq sa moroom am na làmb joo xam ne bi mu paasee ñu wane ñaari mbër ñu toog kenn ki def ne moroom bi doo ma dimbali nga dindi li nga def nekkatuma sax góor boobu fo est-ce que islam dina ko rafetlu lu nekkatul fo làmb moo tax kenn amul benn boroom xam-xam bu mën a toog layal làmb ba làmb dagan dafa xaraam football lañ doon wax gis ngeen match yi ay Barça bu ñuy football day mel ni Sénégal moo ñoo ñoo ñoom seen joueurs yi ñooy football dafa am ñoo xam dañ koy dund. xam ngeen ginnaaw kura boobu ginnaaw bal boobu wallahi franc-maçon gis ngeen gis ngeen xaalis bal jour bi ñu jënd di ko fay ay semaine ñaata milliards semaine ñaata millions <coughs> maa ngi jéggalu damaa suy mais alal jooju franc-maçon yi ñoom ñoo organiser loolu. defe naa seetaankatu football yi sax xam nañ ni ginnaaw bal boobu li ca nekk mooy ay franc-maçon franc-maçon yi ñoom ñoo ñoo ñoo instauré li nga xam ne moom mooy football ñoo koy financé danay jaaxal ñu ne tey jour bi fii la nekkoon tey dem na fële ñaata lañ ko jënd nañ ko bañ na ba jënd sax la ñuy wax dañ ko jënd ay waay alaa yaalamu man xalaqa wa huwa latiful xabiir ki bind mooy borom bi subhanahu wa taala jënd nit moo tax bi ñu jaay nit ñi libi ñu koy bañ ma ne kon nañ changé waxin bi kon bu ñu waxti joueur bii dañ koo jënd parce que nit bi dañuy jënd ay jaam joueur bii dañ ko jënd di ko fay ah ana différence bi. dama ko xam ne 358 millions par semaine lay am. 358 millions par semaine. Alexis Sanchez. Alexis Sanchez fan lay football moom. Barça wala Real wala Real Madrid wala fan. Manchester na dem Manchester semaine bii rek na dem Manchester. <laughs> ndeysaan nga xam ni dañu egg ci benn monde boo xam ne. man de fois sama waa kër dañ may mere ci seetaan man leen du kenn du ko fi seetaan da ngay jaaxle dangay ngay xoolal dañoo muus dañuy jël sa xel moment bi nga waroon toog am leneen loo xalaat pour développer sa réew dañ la faa dugalal leneen te nag dafa dem ba nekk benn virus boo xam ne pour nga mucc ci dafay jafe. man bu làmb am na am ay temps yoo xam ne làmb su musaana am dama amoon ay mbër ne kii mooy sama mbër mais dafa di yàgg ma woo xale yi ne su ku ma fi nga ne kii laa faral di nga da dem ba da ngay day nekk benn virus day mel ni dañ la ko pikiir nga nga ngay am palpitation bu sa mbër moom nga askanal sa bopp suy bëri mais lan moo ko fi jar ma waleen na leen léegi sans bopp laay commencé ku fi faralati mbër ci kër gi di nga xam léegi làmb lay am sax danga koy fàtte parce que lépp ñun yaay yi tamit dañ ci am ay part de responsabilité ndax bu ñuy wax ndaw ci ban ween la nàmpe kan moo ko toog pantal ci ban kër la gimmee donte nag actuellement dañoo toll ci jamono boo xam ne la daloon noox daa dal ñu bari ci ñun mooy da ngay yar ba sonn mais système bi moo leen di changé da yar di orienté di yedd mais dafa am lu mel ni xale yi dafa am lu leen ëpp doole daf leen a fëkk moo tax xamuñu fan la ñuy taxaw ak a métti nag ak a nga yar sa njaboot ñu nekk ndaw war laa représenté ndax doom dafay représenté way juram mais ñu dem ci beneen côté wala ñu mel neneen neexul ci xol mais lu mën a am moo dina am na ay fo yoo xam ni am na fi islam du ci d'accord islam am na ay foom te dina leer ci biir waxtaan wi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa xam ndaw moo tax mu teel koo canaliser yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa xam ndaw li muy représenté moo tax fu mu musaana toog di waxtaan day gën a bàyyi xel ndaw yi ndax sax moom ndaw ñi ñoo ko jàppale woon bi coow li baree ñu ne màkka euh, dafa dafa dafa dem ba nga xam ne can yi dañoo commencé chair ñi ne déedéet waa ñi nga xam ne ñoom ñooy waa mustalaxul xadiis ñu ne xadis bii Madina la ko yonent bi waxe am ñu ne màkkatal mukarrama la ko waxe ndax boobu dem na ba nga xam ne xale yu góor yi dem nañ ba can yi cher na ci ñoom ñu am problème lekk lekk nga gis koo xam ne day làqatu du yërnu jigéen di xool jigéen bi romb genre yooyu yonte bi daf leen a dajale woo leen yaa ma'shara shabab man istataa minkumul baata falyatazawwaj al baa ñu jàng arab xam nañ leen lay firi mooy condition yi réunir ci yow pour nga mën a yor soxna nga wér am xel am wéru lal bi baa am xereñ boo mën a téye jigéen ndax jigéen fayaa fayaa nii rek du ko du ko du ko téye léeg mu dëbb la li njaa bu mag yow jëkkër ji te doo ko xam ak ñoo bëri pexe xam suñu benn oustaz bu xaw a nay soxnaam ko bëggee ndax day jël benn feuille rek ci ay français na ko ordonnance la <laughs> pour wax ne jigéen dafa pexe mais bi daf a woo canaliser waxtaan ak ñoom ne leen ee yéen yi lu tax waxul yaa machara rijal yaa machara shabab ee eh, yéen ndaw yi ci toll tey soxla jigéen nit day soxla góor day soxla jigéen moo tax pour sax ñu mën a xam ni góor gi majeur na jigéen bu majeuree li koy wane mooy dafay gis mbaax mais góor bu majeur day tëdd géwént li ñuy tuddee géwént am di jëflante ak jigéen yàlla moo bindee noonu góor ak jigéen ku nekk day soxla moroomam avant islam bi ñëw amul woon organisation moo tax doom doon juddu kenn du xam kan mooy baayam mais islam dafa ñëw organiser ko jaare ko ci sëy sax yonent bi woo leen ne leen eh dama ni làqatu bi di def tasallul di di xool jigéen ñi di def ay façon bàyyi leen ko ku mën a denc yéen soxna na ko denc mu mel ne dañ koo laaj sang bi sallallahu alayhi wa sallam lu tax fa innahu agaddu lil basar wa axsanu lil farj day tax facteur bi gën a garaaw ci indi bàkkaar muy bët doo ko teg ci jigéenu jàmbur ñoo commencé gun tem bi <laughs> nee na waxtu bi <laughs> ñu jéggalu <laughs> yonent bi na sallallahu alayhi wa sallam garaaw maa ngi koy tënk yonent bi na sallallahu alayhi wa sallam ku mën a denc yéen soxna na ko denc day tax sa bët doo am bàkkaar bi nga xam ne ëllëg dañ la koy mbugale te bët moom moo koy waral xam nga benn bindkat dafa bind bët mooy facteur bi gën a garaaw ci ci ci ci ay bàkkaar fa nasratun fa ibtisaamatun fa salaamun fa kalaamun fa mawidun fa liqaa'u bàkkaar kii sàcc du dafa xool day observé kër gi muy sàcc bëccëg bi soog a dem boutique bi muy dajji da koy xool soog a dem kii njaaloo dafa xool ndaw si xemmem ko moom moo tax moo tax ku yàlla jël ay bëtam mu muñ ko te yàlla tax ëllëg yomal xiyaama yonte bi nee na yàlla nee na rus na taxawal teg say jëf di ko pëse inamaa yuwaffa inamaa yuwaffa saabiruun ajrahum bi xayri xisaab ñi muñoon nattu yi leen yàlla tegoon directement àjjana la ñuy jël bët facteur bu doy waar la mu ne day tax sa bët doo ko teg rek bu ngoon jotee rek wala nga dem ci école ba xoogaliku tuwaaju rek xale bu jigéen bu romb nga teg ko ko xool et puis da lay indil bët da ngay dégg naan diw dafa weex bët mooy xam koy tànn gaawal nga tànn kenn nga dem man caa dimbanikoo moom tam mu dimbanikoo ci yow ndax yonent bi day wax ni ñaari woy dencante sallallahu alayhi wa sallam bu ñu àndee ñoom ñaar rek toog ku nekk xool moromam bëtu cofeen yàlla nga toog ci xadara ba di leen xool bëtu yërmande yërmande yàlla ci jaar mooy rahma mooy baraka mooy effacer la ay ay ay bàkkaar yëkkatil la ay yiw mu ne day tax tamit sa pëy doo njaaloo njaaloo mi nga xam ne tey du dara pour ñun du dara njaaloo mu tasaaroo moo tax tey déggi bari njaaloo mi nga xam ne tey dañ ko médiatiser njaaloo mi nga xam ne boo ko bëggee fa nga koy am ñëpp xam nañ ko léegi mu dànkaafu góor ñi ne nag su fekkee nag conditions yi réunirul amaguloo xaalis di nga soxla sa moroomu jigéen olof nee na bala nga naan naam danga fay nekk nee na ngay woor ba man lam yastati' fa alayhi bi soom fa innahu lahu wijaa soo ko mënul deel woor dina tax dina la gàllankoor ba shahwa bi ngay am jëmale ko ci jigéen boo xiifee dootoo ndaw yi ñoo jàppale woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam démb taxawu ko ñoom seen foo dañ daan fo yonent bi su musaana julli ba pare suba ibnu abbas nee na day tourné jàkkaarloo ak saxaaba yi bu ñu defee seen baaqiyaatu solihaat def seeni awraat ba pare ku nekk day nettali ayaamul jaahiliya ni mu ci nekkee woon ñu ne yonent bi da daan reetaan sallallahu alayhi wa sallam mais loolu folo lañ daan fo da jàngale woon na tamit na leen dajale leen benn côté ñu fay nekk di jàngale nga xam ne moom mooy ram maanaam sànni tiir ñu koy tuddee comme tey ñu jàngale naka ngay naka ngay tiire pistolet daf leen doon wax nañ jàng feey tey gis nañ yooyu yëpp dañ koy def léegi ay jeu ki dàq fee diggante Gorée ak Dakar defe naa ren ñaari sœur ñoom ñoo ko jëloon yooyu ay fola islam terewul fo mais ban fo moo tax laib ak lahwu ñoom ñaar sax duñu benn moo tax yàlla bi mu ñuy dànkaafu afa xasibtum annama xalaqnaakum abasan baatu abas ñëw ñoom ñetti façon laib lahwu ak abas ñetti yépp bu nekk dafa am lu muy représenté ah laib ñu ne xale moo koy def abas ñu ne ndaw li ci toll moo koy def lahwu magum jëm mu am bijaaw moo koy def laib mooy fo fo nii nii rek fo mais fo bi gën a garaaw mooy fowee fowum jigéen nañ ma baal foofu fowum sexe fa kàddu yu déplacé fa yu doy waar tey da ngay gis ni bu njëkk ba da nga daan am foo war a dem am ko àndal da ngeen di dem sañu leen sax am na yoo xam ne sañu leen ko mais tey xale yi ak ñu ose te sañ ñi ngay dégg ñu leen di tudd ci diine ñoom ñëpp ay ndaw lañu woon dañ lay wax ni Aboubacar as-Siddiq passé wul woon 37 ans bi muy dugg ci diine Omar 27 ans la amoon ci temps yooyu Ousmane 34 ans la amoon Ali moom 10 ans la amoon bi muy dugg ci li nga xam ne moom mooy diine al mubashirina bil janna ñi nga xam ne yàlla daf leen a bégale aljanna ay ndaw la ñu woon Talha 15 ans la amoon Zubairu ibnu Awam 17 ans la amoon Saad ibnu Zeyd 15 ans la amoon Saad ibnu Abi Waqas mi ngi amoon 17 ans Abu Ubayda 27 ans ñi ngay dégg ñu leen di wax ci diine bu ñu ko temps bi may mayoon koo dégg tey ñu tudd ko ci diine di ko kañ nga defee ne dafa toog ba am 50 ans ñu soog koo kañ bi muy nekk ndaw lu ci sóobu yàlla jàppale ko yàlla indiwuñu fii pour ñuy caaxaan ak di fo foo dañ koy organiser mun nga ànd ak sa waa kër ngeen dem plage ayul tey la samedi ànd ak sa waa kër ngeen dem plage ànd ak sa waa kër yóbbu leen ci ay place ñu dem xool visiter dem lu mel ni Gorée dem parc an yooyu aayul mais ñun xam nañ yéen sax bi ngeen lay sant waxtaan bi xam ngeen bu baax bu baaxul nag fay baax ci ndaw xam nañ ko ni bon ci ndaw xam nañ ko ndaw di sax da koy def pare xam ne lii baaxul tey xale yu góor yi am na ñoo xam ne seen fa mooy lan dajaloo jënd seen yàmbaa dem toog di tux ñoom ci loolu la ñuy retrouver seen bopp tey xale bu jigéen bi mu ngi xool nan lay naxee xale bu góor bi fan lay jaar ba mën a am xale bu góor bi façon naxante boobu pour ñoom loolu fa la nga ànd ak xale bu góor bi mu luye benn appartement pour benn journée ngeen nekk fa ba ngoon nga ñëw ne fekkum sa yaay du xam dara ci li nga nekkoon fekk toj nga dëkk bi ñu ngi leen di jéggalu waxtu bi ñaan borom bi subhanahu wa taala lu ci jub yàlla nañ ko jëriñoo ñun ñëpp ku ci nekk safaan man la mu ñëw ci man bañ a ngeen bañ ci am dara yéen ñu ngi nuyu sunu mag ñi nga xam ni teew na fi nekk sunu amira su koy faal bokk ci ñi nga xam ne def na ci man formation macha allah ak sunu sœur bi mu àndal ñu ngi leen di ziar bu baax di leen dalal jàmm di leen wax ni nii la mais ay étape la dafa jot ci ndaw yi ngeen dajaloo taxaw di dem ci presse bi di génnee li ngeen war a wax ngeen koy wax li ngeen war a def ngeen koy def àdduna bi senegal bi surtout fi ñu nekk bu leen yaakaar ne ay Ablaye Wade bi nga xam chaque jour ñu tudd ko ñaar fukki yoon li fi doxal dara gis nañ ba fi nekkee li mu fi def keneen ak keneen li koy doxal mooy ndaw lu gëm diineem di dund li nga xam ne moom mooy islaam te du ci ragal lawmata laa'i aqulu qawli haza wa astaghfirullaha li wa lakum salaamu wa rahmatullahi wa waxtaan am solo lool macha allah ñu jàng ci lu bare bare nga xam ne dinañu bàyyi suñu xel bu baax a baax lu yàgg nañoo jàng ci moom sax fekk sax gisuñu ko ba tey ñu ngi nekk ay xale yu góor yoo ne ñu ngi góorgóorlu ndax ku toll ci ñaar fukki at man yaakaar naa ne maa ngi ci ñaar fukki at ak juróom te maa ngi commencé di yegg ci minbar di xutba ay paa yoo xam ne dañoo weex tal ak bijaaw su ma paree ñu ne xale bu góor gi jàmbaar la lool macha allah lii dafa waroon a nekk ci football bi wala ci bere bi moom yàlla dogal na moom ci jumaa ji kon loolu macha allah kon loolu yëpp ñu ngi ci yaa sayda bi moom lañ doon déglu bi ñu nekkee xale ndax man teel laa koo dégg ba ma jëndee benn rajo boo xam ne la taxoon ma jënd ko sax mooy musique ma am benn bés rek tourné ma jàpp ko boobu laa commencé di ko déglu moo tax ma ma bépp maa ngi guddal yan baal macha allah. ñu ngi sant soxna si Fall. xam naa bu ñu changé woon sant bi mu gën a baax daf ko jekk waaye man mosuma xam ne Fallène mën na lii waxtaan wi moom am na solo lool waaye dafa am fu am solo boo xamante ne nii euh, dama bëggoon nit ñi ci gën a bàyyi xel daal ci biir waxtaan bi mooy li mu wax ci alquran ne innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna ala qulubihim iz qaamu baatu iqaamu boobu lu mat a bàyyi xel waaw parce que ñun fii Sénégal ñun war nañu bàyyi xel suñu suñu suñu réew mi xale yi parce que daa mel ni léegi jamono bi coow moo gën a bàyyi ka jëf kon iqaamu daf ñu daf ñu jafe trop te war nañ ci dellu bu baax xale yi ñu leen di jàngal waaye nag jàngale ñu leen jëf toujours dama wax. yenn saa yi ñu réew mi fu mu toll nangam amul réew mi nii réew mi naan mais réew mi nit ñaa ngi yuuxu mais yaruñu ndaw ñi ci liggéey ci ay caaxaan lañ leen yar da ngay gis ndaw ñi ba vacance jotee lii am lan la au lieu ñu libéré leen ñu dem jàngi seen diine mais duñ ko def au lieu ñu libéré leen ñu dem sax jéem a liggéey sax mën sax bay bopp mën bay mais duñ ko def dañuy bàyyi ndaw ñi rek ñu nekk nawetaan di football rek. ak di dem soirée dem ci yeneen i place dem ci yeneen mbir mais la moo tax mënuñu bàyyi ndaw yi jàngal leen liggéey yoo xamante ni bii maanaam maanaam du sonn parce que yow li ngay jàng sax xamoo fa la sa wërsëg nekk wala déet mais est-ce que taw li kon jotul maanaam Sénégal jotul ñu jéem a jàppale ndaw ñi ci ci liggéey liggéey maanaam liggéey vacances bu jotee xale yi ñu jàngal leen bay xale yi ñu jàngal leen yett xale bi jàngaleen yeneen liggéey yoo xam ne liggéeyu doole lay doon waaw parce que am na koo xam ne moom xam lu dul bind ah comme maturut booy nga xam ne moom xamul lu dul bind ak signé loolu kese la xam waaw boo jàngee ci loolu nag ba pare nag amuloo liggéey nooy def da ngay war di naxaate rek waaw ko defee kon réew mi euh, euh, thème bi soxna si fan waxtaan maturut il faut ñu waxtaan ak daal ci forum bi incha allah parce que dafa laaj débat bu baax waxtaanaat ci bu baax parce que dafa am solo te xam naa mayu ko pour mu mën a développer li mu li mu wax waaw ah, bu daal ñu ngi woo ndaw ñi yëpp comme ni nga ko waxee Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñi ma toppoon ñëpp ay ndaw lañu waaw Aboubacar mi ci mag ndaw la ah, kon booy jaaxaloon ñun ñëpp parce que noonu laa ko mën a waxee ñu dégg ko waaw booy Seydina Muhammad yooyu ngay gis booy yooyu ñu ñëpp ay booy lañ woon mais xoolal ni tukkali àdduna xoolal ni yëngali àdduna te xale yu tuuti ay Abdoulaye ibn Mas'ud ah ay Usaama Usaama Usaama ibn Zayd bi ko Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di yónni di yónni yeneen la ah ba muy ba muy ba muy jiite jeex yi ñaata at man maa ko mas xale yu ndaw ci mbedd bi waroon mën sax dem fu defu ko léegi subhanallah xale yooyu dañoo war a si waat. incha allah dañoo war si waat. yal na yàlla tabaaraka wa taala delloo seen xale yooyu. salaamaaleykum. forum bu mel nii dina laaj ñu def beneen suivi bu fekkee bëgg nañ nekk jël seen responsabilité xam naa li ñu waroon dañ koy tënk ni magu réew mi moo ko bindoon si jamono doon ñaax ndaw yi bu ñu jël seen responsabilité surtout ci mag mi ko bindoon ñu ngi ko naan Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum dafa toog si jamono mu seetlu ndaw réew mu bind benn poème tuddee ko yaa Sénégal delloo ko Sénégal kuy faral di déglu Oustaz Mor Thiam ci RFM ci fajar générique bi muy tijjee générique bi nga xam ne moom lay defee émission te waa Firqatu Tawfiq di ko wëy poème boobu la góor gi dafa ni au Sénégal tu as versé de chaudes larmes tu as pleuré je vois bien que tu dois pleurer la plupart des gens sages ont pleuré la jeunesse de ton pays se livre à des activités qui ne rapportent jamais que des éloges immérités voici une critique que lui adresse la langue d'un penseur absolument sincère Que peut-on espérer de la jeunesse s'il ne cherche plus à euh, accueillir de quoi satisfaire demain les exigences de la nation Que peut-on espérer de la jeunesse si elle ne profite pas des fruits de l'instruction, c'est meilleure qu'elle Que peut espérer de la jeunesse si elle ne s'emploie pas à accueillir non seulement les exigences de la nation, mais aussi faire le beau est un vice qui court les rues en ce moment-ci. Cela n'engendre que la pauvreté. Or, la richesse euh, la pauvreté ne sont pas les deux identiques. Aujourd'hui, le culte rendu à Dieu se fait avec des signes ostentatoires. Méfie-toi de la fréquentation des vicieux, dont la seule préoccupation est de gérer toutes sortes de semences de perdition. Aujourd'hui, aujourd'hui, la vie est brève. Elle, regarde, elle ressemble à un regard furtif que jette derrière soi celui qui veut voir plus clair. Après l'instruction, exerce un métier et évolue à l'instar des intellectuels progressistes et des philosophes éclairés. Fuit l'immobilisme car il est source d'avilissement de la même façon que la stagnation détériore et pollue l'eau. Reconnaît le fond des choses car c'est par l'examen approfondi que les savants dominent Pauvre jeune homme, voilà les, sages, euh, les conseils qu'un sage te dispense. Et c'est ton ne pas écouter les sages de bons conseils. ngeen baal ñu ci guddee salaamaaleykum wa rahmatulah. waaw man li ma doon wax rek ci thème bi mooy ñun lan mooy islam li nga xam ne moom la islam indi ngir mën a opposé wu ak li nga xam ne moo am ci jamono ji buñ koy xool ci wàllu musique. yan la yan la propos yan proposition la islam def pour mun a dévier ñi nga xam ne ñoom ñooy daw jëm ci wàllu sabar beeg ci wàllu hip hop beeg ci wàllu arène beeg affaire yooyu noonu damay jàpp ne mbir bi nekkatul dañoo war a topp rek ne islam dafa dafa xaraamal musique rek nañ ko bàyyi déedéet dafa am leneen loo xam ne moom lañ war a taxawee bu njëkk ba amoon nañ ay ñoom Maher Zain amoon nañ Sami Yusuf mais alhamdulilah yàlla def na léegi am nañ sasar am nañ jottali am nañ kàddu ndaw loolu jàpp naa ne loolu benn alternative la benn solution la ci biir solution yi nga xam ne moom lañ moom lañ war a rapporter ndax boo xoolee bu njëkk ba dañ daan wax affaire ay ay jàkkaarloo mais léegi boo gisee sasar yi jottali ñu ngi dem ci li nga xam ne moom mooy mariage yi di ko animé loolu damay gis ne loolu benn solution la. ñaareel ko mooy problème mu ay ay dessin animé ñoom tubaab bi dañoo indi seen i seen i dessin animé yoo xam ne dañ ko def def ay héros créé leen de toutes pièces ñoom ñu ñoom ñu defal leen ko léegi ñun naka la war a xoolee ñoo xam ne ay héros la ku mel ni Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mënuñu ko dessiner ku mel ni sëñ Abou Bakar ñooñu ñooñu kenn mënu leen a mais à part à à travers des ñu jéem a defar ñun tamit. ay mbir yoo xam ne ay ay dessin animé yoo xam ne suñuy doom buñ koy seetaan non seulement dinañ yeew mais dinañ si xamaale jaaral jaaral jaase loolu noonu xamaale seen diine man jàpp naa ne fi mu nekk nii suñu taxawaay loolu la waroon doon mais warul nekk benn maanaam victimisation jéem a di victime wu seewu naan ay islam dafa xaraamal li islam dafa xaraamal li mais nit ki boo boo teggee daal dafay soxla nga tegal ko fa leneen man jàpp naa ne fi mu nekk nii en lool mooy suñu taxawaay ñetteel ba mooy li nga xam ne moom lañ war a émission yi nga xam ne moom la ñuy def mooy ay colonie de nañ ko si juste taxaw na ci juste joué na si rôle bu am solo colonie de vacances yi léegi commencé nañ ko def ñu koy tuddee ay colonie de vacances islamique yoo xam ne lañ fay def ci ay man yàlla baaxee na ma ren dem naa fa ba ba ma ba ko mais ay mbir yu am am solo yoo xam ne kenn ko wane si terrain ndax ça fait pas te ñun loolu tey mooy suñu taxawaay mooy nan la ñuy fexe ba ñi xam ne islam am na ko te wallahi islam lépp luy rafet islam moo ko ëppale li ñu wax aar ak bële inna allaha yuhibbul jamal yàlla subhanahu wa taala wax na yeneen saa sa wax ko ci xadisul ne na yàlla nee na ku rafet la ba pare dafa bëgg lu rafet kon wàllu aar wàllu peinture ak yeneen mbir yoo xam ne am na fi nit ñi dañ koy dañ koy occulté ñu jàpp ne loolu bokku islam alors que loolu ci islam la bokk ci aslu islam la bokk loolu ñu naka la ñuy fexee ba génneewaat ko ba teg ko sur la table ba ñëpp di ko gis ñu jàpp naa ne loolu mooy tey suñu suñu suñu suñu taxawaay kon loolu laay woo ñëpp koo xam ne dañ tey ñu nekk ñu ndaw nga nga fexe ba indi ay alternative yoo xam ne dañ ko war a montrer au grand jour li see daa wax dafa am solo mooy ñun dañoo war a bàyyi suñu réserve yi génn fas yéene jàkkaarloo ak nit ñi ndax ñi ko jàkkaarloo ay nit la ñoo xam ne ñu pare la di seedaaroo woon dañoo pare pare nañ démb tey soo ko ñëw damay faral dégg sama mag Mouhamad Mansour Yaay daal wax benn mbir bu am solo mooy day wax ne ki nga xam ne moom mooy euh, alqarataawi rahima euh, euh, hafizahullah dana wax ne ñi ñi nga xam ne ñoom ñooy jullit dañuy ba ñuy dugg ci euh, maarakatu Palestine li nga xam ne moom mooy problème mu xamee Palestine bañ siy dugg duggeewuñu si ak ak ak foi maanaam duggeewuñu si en tant que ay jullit te alors que yahudi ñoom daxalu fii yahuda waa arabu fii yahuda mu ne ñoom dañoo dugg ci biir problème boobu nekk ay état des des juifs mais ñun dañ siy dugg dañ naan non problème mu arabe la alors que France bi le problème baax kon loolu lay transposé waat ñun ñun ñii dañoo war a taxaw ñun ñii ñii ay jeunes dañoo war a taxaw temm ci problème yooyu ñu ut ay saafara ay alternative yoo xam ne yow ama am solo la yoo xam ne buñ ko yi dinañ toog wasalaamaaleykum. kon ñuy tënk rek yoon bi nga xam ni moom la ñu wax si yoonu ndaw li ci gën a am solo mooy nga wëri gi doon c'est référence yoon bi te yàlla dafa tegtal li nga xam ni moom mooy. lépp looy teg sa tànk si yoon bi rek am na koo xam ne mooy siital si yoon bi su fekkee yoon bi dafa gudd yàlla ni la jëla si noox dund na junni at yi manqué juróom fukk lott na ba lax si woote kon foog nga muñ ndax yoon bi dafa gudd mi la bu gudd te fekk yow am nga ay li nga xam ne mooy bànneex àdduna mi la jël si yenn yent yi bare bare comme ni ko soxna si waxee si Yuusuf wala yoo xam ni sax ay nattu la yoo xam ni dal na ñi nga xam ne mooy yéen di jiitu waaye raw na ki nga xam ne mooy si idol yéen bi sallallahu alayhi wasallam na jël si moom si lépp te yoon boobu dafa laaj ñu ci wër li nga xam mooy idol jamuñ doon nag moom mooy dañoo sàkku li nga xam mooy si référence ak suñu idol dem bëri ñeneen ñoo xam ni seen plan dañoo tam dañoo tëdd yàcc yaasaar dañoo teg plan stratégie boo xam ni gouvernance mondiale ngir ñëpp mën a wéy si tànk boobu rek gërëm la loo ni ku ne yaa ngi doxal sa seytaane si portable bi ñuy wax ku ne sa seytaane sama sëriñ euh, sëriñ Abdel Touré euh, hafizahullah tey euh, da daan wax naan kër gu ne def nañ fa jaanu ñàngoor loolu mooy lan mooy tere yi léegi romb nañ si tere yi système yi moom mooy dañoo xool alxuraan bi mënuñu dara moom waaye dañ jéem a ba nga xam ne ruux bi dee ndaxte 400 ans yi nga xam ne jullit ñoo ko yoroon seen xol ñoo ko yoroon si dëkk àdduna boobu jamono mooy ruux bee dundoon mais jamono ñu toll mooy suñu ruux moo dee ruux bi nga xam ni moo war a dund dundal li nga xam mooy lislaam ndax ruux bu dee mënul dundal lislaam problème bi foofu lañ nekk ñi nga xam ni sax doy na ñuy uti référence boobu sori mooy 53 ñi nga xam ni sunna dañ koo woote fii si dëkk bi njëkk a woote mouvement islamique si si si Sénégal ñooñu juróom benn lañ woon bokk na si Saliou Diouf góor gu ñu jur ñoom ñi jàng bokk na si ñoom bu ñu moo tax dara mu si histoire bu ñu ñëwee dañ créé mouvement ICM ñu wax union islam moo fi jiitu Sénégal kenn ittihaad saqaf islam bu ñu demee san Sonkoros ñi créé li nga xam ne moom mooy jamaa Ibaadu Rahmaan bi xew de mais ñoom bu doon yàcc yàccaar duñ am lii am kon yooyu référence doy na référence nga bëgg dara foog nga def dara mooy Cheikh Mawlana Moussa Mouhamadou Thiaba du ñoo jiite sama yàlla ñëpp dañoo daw ndax xam nañ ne dafa def effort appartement spécial lañ ko defal muy gëstu loo xam ne lépp loo xam ni ah war na ko si biir li nga xam moom moom lay jonganteel kon foog nga def dara mais yàcc saa bu ko doon da ngay xeetali umma bi loolu doo dem foog nga wuti itam jéem a teg si bi doy na rek docteur Habib si suñu cheikh bi fii mu tabax tey dafa liggéey taxawal li nga xam ne dama ko wuti li nga xam mooy xam-xam jéem a créer dara kon jéem a effort doy na li nga xam mooy forom bi ngeen taxawal xale yi fi ngeen toll nii mën nañ dem fii ak nangam at ñu ne dégg fekk si at na yàlla nañ ko yàlla mooy salaamaaleykum wa rahmatulah. mooy dèjà lan mooy ndaw maanaam ñun ci islam boo xoolee ñun boo xoolee ñun bi ñu nekk. dañ ne ndaw mooy de zéro à trente cinq ans fanweeri ak juróom ñun si islam am benn terme bu ñëw muy muskalaf maanaam ñun ndaw dañ ko kiyee mooy si suñu société dañ ne ndaw mooy zéro à trente cinq ci loolu dafa war a jàng dafa war a fo ñu dem ba jàng bi nasa ndaw yi di fo rek mais ñun suñ ñun islam ñun lan mooy ndaw ndax responsabilité dafa am ndaw walla mag damay ñëw ci moo muskalaf bi ñuy wax ndaw fan na commencé ndax responsabilité nit këm si àddinaam si àllaaxira parce que tey jii koo jëlee damay jël benn exemple ba nga xam ne dañu koy jox ñëpp pour wane ne ki war a jaamu yàlla ki war a defar àddina ki war a defar àddi àllaaxira toujours mag lay doon soxna Maam Jaara Buso bu ñu koy won dañ koy won muuraayu benn mag te yàlla xam ne doon woon mag ban âge la amoon ku ko fi xam par rapport yi ñu koy wonee bëri na lu ñuy wonee ya nga xam ne dañu koy won comme ay mère wala comme ay paa te boo demee ba si biir danga naan ñii duñu duñu duñu ay mag duñu âge kon foofu war nañu xool ñun lan mooy ndaw si ñun si islam lan mooy ndaw ndax responsabilité am na ndaw wala am na mag beneen bi mooy mooy ñi ñëwaat rek ci ndaw ba léegi ñun ci divertissement lan moo tax ñun jullit ñu ne damay jël comme exemple ñu ne ñun ay ndaw la lan moo tax ñu ne liy bëggal ñeneen ñi moo ñuy bëggal suñu problème la maanaam problème xol la lan moo tax man li may bëggal ci sama islam en fait bonheur bi may trouvé ci islam ma ne ko fa ñun. ne man déedéet li ñeneen ñi leneen ñi ñuy trouvé comme mbégte tey jii boo xoolee musique bi nit ñi da leen da bégal bëri na ya nga xam ne xale yi ni comme niñ koy waxee maa ngi defar ba mu baax bëri na ay ya nga xam ne ñun ñoo bëgg ne ñun looloo ñuy bégal alors que ñun ñoo war a seet suñu biir maanaam manque de production bi am si ñun li ko sama frère bi waxee woon la dafa dafa fës suñu lépp dañuy jël leneen yi. ñi nga xam ne léeg-léeg la leen di bëggal amuñu fulla ne ñun si li ñu nekk ni lii laay bëggee ñu ñu jël ko si xale yi defar ko xale yi benn image bu ndaw laa leen di gisal pour te dire que ne ñoom ni ñu ni ñu ni ñu xarañ nii ci li ci li mais la xarañ ne si lu ñu nekk tey jii xool leen année année scolaire octobre la commencé xool leen saa yi ku nekk ñu doon jëndal doomu saak kan lañ ci def ay princesse saak yëpp boo jëmee xale yi jàngee daara xale yow boo buggee sa doom bi du ma ko utal saaku princesse man dama lay jox sama exemple dama dem di njëriñ bi sama doom ne ma princesse man du ma la ko jox man ko est kii sol na lu jot mais pour nga dubbee saak ba nga xam ne ay dessin animé daal ngay wut ba nga xam ne xaw na yema maay mais nga wër école xale boo gis mu nekk daara mu nekk français la mi ngi teg princesse kooku luñ koy jàngal ak musique ñooñu di def xaw ma seen yooyu mi ngi si biir kooku luñ koy jàngal foofu dèjà ndax nañu foofu xale bi mi ngi gis loolu mais koo koy staara yaa fay na ko staara koo koy staara kooku nga ko jëndal saaga mu koy doxee kon yooyu yëpp war nañ see bàyyi xel te dina gën a jaxle ndax ñu ngi dem le 2 ñu ne ku fiy ñëw. Rihanna Rihanna ministre démb lu mu wax mu ne suñu éducation nationale déglu leen rek démb ma damaa mer mu ne suñu éducation nationale dafa soxla xaalis. déwén li may wax ni journal Pané la ko waxee mm. ñu ne suñu ñaan ñun dafa soxla xaalis xaw ma ñaata. 3 milliards 3 milliards ah. léegi yooyu ñi ngi xam ne dañuy ñëw mooy seen seen seen xaw ma la seen fekk boobu di ñëw. ñu ne ñoo nar a suñu éducation. ba pare ñu jàng Rihanna mi nga xam ne contre valeur la ñu ne mooy ñëw Sénégal yëkkati xaalisam duggal ko si suñu ñaan pour mu dox gars jóg leen. jóg jot na asalaamaaleykum. Tata Sali li nga wax sànq rek ci princesse yi princesse yi kañ la commencé fii ñëw depuis que poste téléviseur am n'est-ce pas ndax télévision yooyu booy seet ñoom seen xeet yëpp foofu la commencé Sénégal ñun am na lu ñu ba xëy na yenn coono yi ñun amuñu woon fit sax di ko doxee suñu bàq bi gis waxatuma daal di tey génn euh, ci biir ci biir bi. donc bi teel a ñëwee ñoom tubaab ah am na lu ko yàlla may de waaye ñun tam dañoo toog ne yàcc na yàccal parce que gii na di moo tamit consent loolu la rek damay déglu benn waxtaan bu tari na ko doon waxtaan il faut savoir éteindre la télévision surtout pour les enfants parce que li ñuy gis ci télé bi nii loolu la ñuy appliqué de bu ñu gisee ak bu ñu gisul yëpp ñoo ngi def naka si lu noonu da lépp ci télé bi la dessin animé bi Mouhamed wax sànq foofu la ñuy commencé léegi dessin animé yi comme film est-ce que sax jarul woon fatwa buñ tene ñun ñu bàyyi dessin animé parce que léegi doy na waar doy na waar loo xam ne moom film yi daanaka ñoo yem différence bi mooy ñii dañ leen di animé ñu boole nag ay xale ñii ñu tegal ñu ay nit ñu boole nag ak euh, ñun ñii ñu jàpp ne ñu ñoo consciente wala ñu ñoo jeune. Tata euh, question bi mooy sànq dama dégg nga naan féexal xool lu ci mel ni dem plage waaye man léegi damay tiit si ñu dem plage. parce que tey bu ñu demee plage am na loo xam ne la lañ luñ fay fekk daal léegi nii ba ëpp na. doole ñun ñi doonte réewu jullit nañ waaye est-ce que tamit fi ñu toll nii ñun ñi war nañoo def plage est-ce que am yeneen makaan yoo xam ne war nañ ko mën a def feesal suñu xol euh, côté Rihanna moom wax ministre li mu wax li président wax naa looloo gën a génn ah j'ai toujours rêvé de xaalis l'affaire Rihanna dans mes bras loolu mooy lan en tant que président de la République ah boo taxit inna Allaha laa yughayyiru bi qawmin hattaa yughayyiru bi anfusihim di jaajëfal intervenant yëpp ci fi jël carte yëpp macha allah yal na yàlla mu mel ni question bi ndax waratu nañoo dem plage ndax buñ fa demee dañ fay gis loo xam neex. dañoo war a toog bañ a yóbbu suñu doom yi géej dafa bokk ci xéewalu borom bi subhanahu wa taala est ce que bu ñu toogee bàyyi ko ñoom ñu ëpp ko liñ bëggoon dinañ ko am. yi damay jël samay élèves benn ñu yu doy mais dañuy mujjee cëne wu ñoom ndax comportement bi ñuy gis xale yi ñuy gis xam nañ ni bii ñoom même bu ñu ko deful boobu mooy dëkk ñoom dañuy mujjee cëne wu ñoom bu fekkee ñun dañoo toog ci kër yi rek bàyyi leen ak mbir du sotti. ñu ne ñoom ñoo bokk réew mi dañuy imposé wu actuellement fi jamono toll boo nee rus naa ko def lii du keneen moo koy def cay def da ci am résultat boo xam ni est ce que yow ñoom la ñoo bokk dëkk bi ëpp la wuñ fi dara géej gi moom géeju yàlla la bàyyi benn ngoon nga ànd ak sa soxna ak sa doom sa soxna muuru na mu war a muuru nga dem ànd ak moom am na koo xam ne bu xoolee bu demee di leen ay tey di ma rusee ka gis daawa bu rëy la daawa dafa bëri ay ay ay façon am na boo xam ne da wax am na boo xam ne jarul sax wax moo tax dañ am na loo xam ni jarul imposé incarné ko rek yow am loo xam ne doo ko incarné mais koy imposé ñaar yooyu lay taxawee su fekkee leer naa bon man benn question rek la am benn jour bi ngay def xaar sahabia dafa am benn histoire boo indi benn xale bu ndaw la te yéen bi sa salaam moom moo ko yónnee woon bi mu ko yónnee si bi sama tànn si feeñ quoi te tuddoo turam mais moom bëgg nga résumer ni ko tuuti xam naa ki nga war nga xam ki may wax. macha allah. waaw benn benn benn benn xale benn soxaaba passé wu woon 15 ans yonent bi daf ko yónni muy romb. xam nga ni ñu Medina seen kër kër yi mu romb benn wanag ñoo xam ne ñi fa dëkk dañu xaw a néew doole am benn jigéen booy sangu bunt bi ngelaw li naaw mu seen ndaw si ci sangukaay bi rek mu daw jant bi toog ay fan xaar bis ko mu ne loolu mu gis bàkkaar boobu am yonent bi yónni ko pare ko tam tegu ci lu xaraam xamatul nan lay def pour gis yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam dem ci xeeru Madina yi làqatu fa dañ koo wër wër wër ba sonn soog koo trouvé fekk feebar na lompoñ na li mu doon ittewoo rek di wax est-ce boobu loolu mu tegu yàlla dina ko fa baax kenn taxuwaay moom loolu la doon lijjanti bët bi li mu gis ta tayu ko yow mi ko tay nag teg jël sa portable te chargé ay ay bët noonu kër si suuf mais yàlla di lay sa portable tey da ngay soxla benn donné dañ lay imposé benn xale bu jigéen bu si biir mënoo ci dara des fois mais boo tegee rek teggi bi yàlla di wax qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim nee naa leen bët bu doy waar la ci bàkkaar moo ku ko yàlla xaj ëllëg yow nag yaa am si place mooy aljanna boo ko muñee taxam ko na ni ngëm mu am tey est-ce que jeunes yi am nañ ko. dangay toog di dal sa néeg yow gis am na dara di seetaan film ñaari baal yu futteeku lu noonu doo xam doo xef doo ce que nit xam na ni bàkkaar yooyu muy def noonu daf koy affecté ba ci xam-xamam na laha tayibun laa yaqbalu illa tayiba yàlla dafa seetlu bëgg lu dul seetlu mën nga nax nit ñi mën nga laaxatu nit ñi moo tax wax bi muy bi muy bi muy sargal benn catégorie ñu ragal yàlla dafa wax ni inna allazina yaxshawna rabbahum bil xaybi lahum maxfiratun wa ajrun karim wala karim nee na ñu ragal yàlla intérieurement mooy fii sirri wala alal moo xam dañ lay gis wala gisuñu la nee naa la léegi nag portable ñëw na ko yow moom amatoo sax amul problème ndax am na loo xam ne télé sañu koo teg mais da nga koy fekk sa portable am na loo xam ne mi ngi internet bi yow gis sa néeg nga osé mën a toog di ko seetaan en tant que jullit kenn nekk fa yàgg yàlla mais ana sa ragal yàlla intérieurement saxaaba boobu li ko daloon mooy ragal yàlla rek jour boobu la ngeen àdduna bi mu feeñee ndax la mu def pour moom la mu xool rek bàkkaar boobu xamul naka la ko la yow ak boromam ñun tey ñaata bàkkaar jeune jeunesse bi. te da ngay gis sax duñ góorgóorlu mais des fois du am maîtrise ci jigéen des fois du am maîtrise ci góor lan la xale yi am may problème ñu ragalaat yàlla bu baax a baax sànq bi may wax maa ngi wax ne benn na bàyyi leen ci xel de na ndaw lu yaakaar na am fanam te fekk taa ko dem càkkaayam ba teg ko ci marché bi di ko jaay ñu ci xel bu baax a baax ñu ngi ci na te gaaw na te dara waral lu ko yàlla rusuñu yonent bi nag sallallahu alayhi wa sallam waaye nag ñëwoon na am na loo xam ne su baree rek dee bari njaaru bon bon yi lépp ngi fi lim daan alal yi di fi jiitu lépp ñun tey ñu ngi koy def fii Sénégal benn xale bu góor bi ñëwee ci jàkka ja lay dem ku ñëw ci jàkka ja fa nga koy fekk def da nga dul góor jigéen te nee na ñun doon jëf la tëg boo ko di julee noonu foofu da ngay rus yenn yoo xam ne buñ la ko waxee nga nekk ci média doo ko bëgg a jàllale parce que man damay wax ni moo tax gis du ko déglu am na yeneen yoo xam ne man du ma ko dégg ay xeeti génn ñàkk yooyu dafa am lu ko gën da ngay dafa mel sax yow mbon amoon na bu njëkk ba mais média bëriwul woon mais tey média daf ko gën a kii médiatisé yu bëri amoon na fi mais démb dafa làpp woon suñuy ndaw daaw ñu ci jot mais tey démb dañ ko médiatisé dem da ngay taxaw fii ñu enregistré da ngay jékki-jékki dégg sa bopp ci fenn nga gis koo xam ne dafa nekk ci place am na ko def ñu fit ko dugal ko ci réseaux sociaux yi yàlla daf ñuy jàngal boppam dañ la doon jàngal yow man xiyaam nga toog naan est-ce man may nekk xale sama papa wax yow man xiyaam bu ñu ne papa que yàlla dinañu tànn ëllëg foofu la tolloon mais tey tey ngay benn mbir defe ne fekk na mi ngi ci bi ñeem nañ ne dañ lay moytu leen da ngay dem ci hôtel boo xam ni lampe ba dafa am puce bu ca nekk dafa am caméra bu ci nekk bouton yoo xam ne dafa am ay caméra caché yu lay filmer ay lunette yoo xam ko takk daf lay filmer bu yàlla nee ëllëg yowmal xiyaama yowma tubla saraa'iru film bi actuellement daal lancement boobu ñu ñëpp gis nañu ko lépp lu nëbb woon mi ngi feeñ kon yàlla daf ñuy jàngal ni yonent bi yàlla bu ko yónni sallallahu alayhi wa sallam bu mu wax dëgg la mi ngi fi waaye nag yéen ak ñoom tamit ñoo ngi fi te lépp lu ñu def suba ba ngoon ñoo ngi bare pour bind ëllëg yowmal xiyaam comme ni nga ko waxee rek bu nekk daal ay naan ma baax mi na Euh, li nga xamante ne rek moom lañ jàngal si thème bi nga xamante ne moom la suñu Seyda Zeynab yëkkatoon léegi mooy ndaw ñi ak li nga xamante ne moom la si al imaamu shahid Hasanul Banna wax mu jël benn message boo xamante ne daka askanale ndaw ñi di leen si fàttali ay mbir yu bari rawatina ay ndaw yoo xamante ne dañuy yëngu si diine euh, mu mel ni message boobu sax dafa méngoo ak ñun. suñu programme bi nga xamante ne moom la ñuy dawal si keppaaru forum des jeunes musulmans du Sénégal forum des jeunes musulmans muy wax ne ayyuha shabab innama tanjaxu lfikratu ida qawiya al imaanu biha muy waxaat ndaw ñi mu ne leen gëm-gëm euh, balaa muy réussir wala sax idéologie wala xalaat boo mënti am rek balaa muy réussir boo ko gëmee ba pare mu ne wa tawaffara al ixlaasu fi sabiliha nga am sellal boo amee sellal gi wasdaadatil xamaasatu laha nga am enthousiasme pour mën a jël sa pensée boobu ngir jëmmal mu ne wa wujida al istidaadu allazi yaxmilu ala tadxiyati li taxqiqiha waaye itam nga am préparation bi war nga xamante ne sa pensée boobu ngir nga dundal lépp lu mu laaj rek di nga si def ku ñuy wax ashahid sayid qutb moom nee na nit ki liy gën si dundam moom mooy mu dee si euh, jamono bi nga xamante ne moom mu ngi dund loolu li mu ko firee mooy rek euh, muy dund si kaw suuf waaye boo xam jaay na ko borom bi subhanahu wa ay xalaatam jaay na ko borom bi subhanahu wa taala ba bu ko si reyee loolu di nekk sharaf nga xamante ne moom dereetam la dundale li nga xamante ne moom mooy idéologie mu ne wa takaadu takunu hadihi l arkaanu l arbaa mu ne ñeent yi nii xaw tuuti kon mu nekk rek al imaanu wal ixlaas wal xamaasatu wal amal mu ne imaan gëm yàlla ixlaas sellal xamaasa enthousiasme amal liggéey nee na ñeenti melokaan yi si ndaw ñi rek lañ koy gis al imaanu wal ixlaas wal xamaasatu wal amal min xasaa'isi shabaab ñu ne ko lu tax mu ne li anna asaas al imaan al qalbu salim lii cëslaayu gëm yàlla mooy xol bu yaatu bu le bu leer. xol bu muus wa asaas al ixlaas al fuaadu naqiy lii cëslaayu sellal mooy xol bu laab wa asaas al amal al azmu al fati lii cosaanu liggéey mooy am dogu gu mat sëkk wa asaas al amal al azmu al fati wa hadihi kulluha la takunu illa fi shabab nee na yii nekkul si kenn ku dul jeune mu ne wa min huna wajaba aleykum an tufakkiru tawila kon nag war na si yéen ngeen xalaat lu bari wa an taamalu kasiran ngeen liggéey lu bari wa an tuhaddidu mawqifakum ngeen wane seen position wa an tataqaddamu lil inqaas jamono ji fii mu toll ni am mettit yi nee na ngeen jiitu ngir ret sauver umma bi si li nga xamante ne moom lay mu ne wa an tuutul ummata xaqaha kamilan min hada shabab jox umma bi nga xamante ne tey si ngay dund xeet wii lii nga nga war loolu ak moom yëpp see am mu ne laa bu leen am bu leen yaacaaram fa laysa al yaas min axlaaqil muslimin mu ne loolu bokkul si jikkoy jullit wa xaqaaiqul yawm axlaamul ams li ñu li ñu réalisé tey mooy li nga xamante ne moom lañ doon rêvé démb mu ne nag wa axlaamul yawm xaqaaiqul xad tey nag li ñuy rêvé incha allah suba lañ koy réalisé wala zaala fi lwaqti muttasia am nañ temps am nañ wax ولا زالت عناصر السلامة قوية عظيمة في نفوس شعوبكم المؤمنة jàmm ji mu ngi fi am nañ terrain bu ñu ko mën a liggéey dara gàllankoor roxloox yaa ngi mazaahiril fasaad ndax àdduna bi yàqute kii fi nekk yëpp waaye nag wa daifu laa yazallu daifan tuula xayaati ki nga xamante ne néew di doole du sax si loolu ba faaw wal qawiyu la taduunu quwwatuhu abada al abidin ki nga xamante ni itam dafa am doole dooleem jooju saxul lu tax wa nuridu an namunna ala allazina istud'ifu fi l ard wa naj'alahum a'imma wa naj'alahum alwarisin wa numakkina lahum fi l ard mu ne inna zaman jamono ji sa yatamaxadu an alkathiri min alxawadis aljisaam chaque jour mu ngi produire ay accident yu délicat wa inna al furasa lil amali al azima sa tasnah wa takun problème yooyu nag bu xewee xamal ne nag occasion am na wa inna al alama yantasiru daawatakum occasion boobu mooy lan adduna bi muy xaar seen oote daawatal hidayati wal fawzi wassalaam ooteeg njub ooteeg jàmm li nu xallisahu mimma huwa fihi min al alam ngir xettali jamono si méttit yooyu nga xamante ne mun lay dund wa inna dawra aleykum kon nag seen rôle la fii qiyaadati l umam si jiite xeet yi wa siyaadati shuub yor souveraineté bi lu tax wa tilka al ayyaamu nudaawiluhaa bayna nnaas wa tarjuuna min allahi maa laa yarjuun fastaiddu ayyuha shabaab wa amalu l yawm faqad taajazuuna an al amali gadan loolu daal imaamu shahid Xasan al Banna